ak ñu réy ñi mu formé te départ départ boo xam ne bi ci kaw suuf ku dul moom lottu nga ci alam yajidka yatiman fa aawaa mooy départ ba wajadaka dollan fa hada mooy départ ba wajadaka aylan fa agna mooy départ ba mu ñëw àdduna soppi yim ciy soppi defar ca màkka dir bu mat fukki at ak ñett jóge fa tuxoo fa dem almadina def fa fukki at waaw la ci la jàngale woon nit ñi lan mooy al ibaada ak jaamu yàlla mooy lan ak jaamu yàlla mooy lan al ibaada waaw wa maa xalaqtul jinna wal ins loolu ku ne war na ko jàng kon ngir xam ko bind ma nit ak génn lu dul ngir ñu jaamu ma moo tax sunu maam ja waaw sëriñ Mbàkke Buso ca téereem ba ba mu defoon ci waxtu julli waaw waxoon ca wax ju mel noonu ginnaaw julli farata la ñu ne waaw mu ne kon jàng waxtu yay tax nga xam kañ nga koy def farata la waaye jaamu yàlla it mu fekkee moom rekk nu fi indi a ah war nañu xëy nag di ko jàng ba xam ibaada mooy lan waaw te mooy nit ñi nangu ne yàlla yàlla moo leen moom ndax allahu la si xalaqa sama wal ard wa anzala min asamaai maa fa axraja bihi min athamarati risqan lakum kooku yàllaa nu ko defal kooku loolu yàllaa nu ko defal nun luñ koy defal nun luñ koy defal xanaa jaamu ko wa saxara lakum al fulk li tajriya fi l baxri bi amri wa saxara lakum al anhaar wa saxara lakum shamsa wal qamara daayibayn wa saxara lakum leyla wa nahaar wa aataakum min kulli ma saaltumu wa in taudu nicmatallahi laa tuxsuuha inna al insaan la dallumun kafaar wax jëpp jeex lii lépp moo nu ko defal waaw moo nu dafa moo ñu bindal asamaan mu ñu bindal suuf mu ñu bindal taw génn ca taw ba meññit mu ñu tàggatal batu yi mu ñu tàggatal dex yi mu ñu tàggatal jant bi tàggatal ñu weer wi tàggatal ñu guddi tàggatal ñu bëccëg muy fukki yëf wa ataakum min kulli ma saaltumu lu ngeen soxla rekk def na ko fi lu ngeen soxla rek def na ko fi bu ngeen bëggoon recenser xéewalam yi du ngeen ko man na ngeen xam nag insaan dallum la kafaar nit moo goree di waaye lépp a ngi fi nit moo goree di am ñuy lekke ñaari loxo am ñuy lekke gémmiñ am ñuy giiroo nit moo nit moo goree di waaye lépp a ngi fi nit ku am juróom-ñaari oto ñaata la ci war nit ku denc milliard ak lu topp lu mu koy dee nit ku am quarante-trois terrain lu mu koy doyee nit ku am mille hectares lu mu koy doyee nit ku am nit ko am te booy xëy di dem terrain yeeg parking yeeg villa yeeg lépp amut lu la ciy topp ndax zinatul xayati dunia addunaa ko moom inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha lu lay topp lay topp mooy ki amul dara waaw fàtteegu leen moos léebu barki démb bi góor gi ne woon première guddi moom du ko fanaan bàmmee la mukk nu wut ko wacca fanaan première guddi mu door ñëw dixième guddi dégg ngeen fa mujj dégg ngeen fa mujj ka ko ca bëggoon a wuutu it <laughs> dégg fa mujj kon nit moo goree di waaye yàlla lépp a mat na allahu akbar daanañu ko jàng léeg-léeg ca aj màkk ga waaw yàlla na fi corona jóg baay bañ dellu waaw ca aj màkk ga ñu ñëw ne yéen ñii toog ci tànt bi ñaata ngeen ñu na mat nañu ñaari téeméeri nit naar ba dem ñee ñaari téeméeri butéy zam-zam ñaari téeméeri pom ñaari téeméeri añ mu ñëw seddale am juróom ñu amut kon am na juróom ñu jël ñaar loolu nag doomu aadama moo mel noonu waaw tabarkàlla dem ba màkka ñuy séddale añ nga jël ñaari añ te war a jël benn ana wa tazawwadu fa inna xayra zadi taqwa anamu mbokk yi sallallahu alayhi di jàngal pénc ma ak jaamu waaw lii fi indi nit waaye nag mu doon leadership boo xam ne moom alayhi salaam ku ko dégg bëgg ko koo gis gën koo bëgg la dalool waa Madina ca Musab ibnu Umayr kala yar koo gis yaru alayhi salaatu koo gis yaru nit ñaa ngi koy ñàkk a gis dégg ko rek yaru waaw dégg ko rek yaru dégg ngeen ca jamono mille neuf waaw discours Serigne Cheikh ba ca gàmm ga inna min niamillaahi di sal ñoom ñoom Oustaz Malick Malick ñoom tubarkalla ak ñoom xalifa inna min niamillaahi di sal an yabaata ilayna rasulam naarifu nasaba ba discours ba jeex alayhi salaatu wasalaam waa daf ko xool daf ko xool di ko xool bi mu yàgg mu ne xawma lu xew de waaye xar kanam bii du xar kuy wax dul dëgg oh. <laughs> loolu la ko wax de waaw Abdullah ibnu Salaam ponkal la woon mu nekkoon Madina waaw ponkal mu rëy ci xam-xam nekk almadina yonent ba ñëw fa Ablaye ibn Salaam dégg ko ni da koy seeti ba mu ñëwee ba jàkkaarloog moom jàkkaarloog alayhi salaam mu toog mu ne alimtu anna wajhahu laysa boo ci kazzab bii xar kanam du ko du xar ku yox dul dëgg moo tax leadership du wax lu dul dëgg xaayit du wax lu dul dëgg raayit du wax lu dul dëgg maanaam fen waaw tabarkàlla bokk na ci ay waxam yam daan wax di ko wax waa penc mi ngir defar leen ci ginnaaw gàddaay ga ayuha naas afsu salaam wa atimu taam waaw wa sallu billeyli wannaasu niyaam tadxulul jannata bi salaam ee eh, yéen nit ñi ku ngeen romb na ngeen ko nuyu dee leen nuyoonte <laughs> allahu akbar ee eh, yéen nit ñi dee leen nuyoonte nogay su meree wujjoo rek du ko nuyu bu ko wujjoo meree du ko nuyu maa gis jëkkër ju dul nuyu jabar maa ko gis jabar joo xam ne bu ko jëkkër nuyoo jëkkër ji jëkkër ji du ko fay ma ne ëw foofu nag raay ba tiini <laughs> waaw ak directeur bu dul bu bu romb emploi du ko nuyu wala bu ko nuyoo du ko fay waaw xew ci pénc mi yépp tabarkàlla yonent bi nee na ayuhannaas absu salaam yéen nit ñi dee leen nuyoonte muy benn waati mu taam de leen bokk ak seenu ñam ñi amul ñam de leen bokk ak seenu ñam ñi amul ñam bu ngeen di reer woote leen reer bu ngeen di añ woote leen añ bu ngeen ndékki woote leen ndékki lu ngeen am bokk leen ak seeni bokk waati mu taam li fi nekk ci lu ñuy lekk buñ ko bokkoon séddoo ko ci digg ba ñépp am lu ñuy lekk mbokki Abu Musa al Ashariya waaw ñoom bu jamono méttee maanaam jamono jiite nga xam li baykat yi amoon suul nañ ko liñ suuloon sulli koo gut maanaam ñorugut léegi soo ñëwoon ci ma xam mbaakool ñépp génne liñ am teg ko ca pénc ma séddoo ko ci digg ba ñépp am waaw nga ñëw càll ñu def ko waaw moo tax Senghor ci politique daana def li ñu tuddee restu restourne li fi resté woon moom lañ na tournel yët la ko nii mu toppaat baykat yi gerte gam leen jaayoon ci fanweer te téye woon ci juróomi dërëm mu delloo si leen juróomi dërëm ya muy pepp mbaa ceeb mbaa bele mbaa meew ku ci nekk ñu jox la mu yóbbu sa kër restaurant la tuddoon ndeysaan waaw ku mënoon a la moom Senghor waaw jamono dañ koy wax naan ko euh, boîte na dañ daf ne leen ëpp naa def ndax boîtu jaboot la waaw waaw moom nañ bàyyi mbayum gerte mu ni ëpp naa def ila axiri ila axiri ca yëfam yooyu mu daan def moom Senghor la boo ko laajee Ablaye Wilane waaw fële ca kafrin xam na ci lu gën a yaatu yonte bi kon mu ne dee leen nuyoonte te te yàkkalante <laughs> loolu lay tax ndaw ku nday dégg ko dee leen nuyoonte tey yàkkalante ñu ne waaw mu ne tey naafi la tey naafi la su guddee wa sallu bi leyli wa naasu niyaam parce que salaatu leyli mooy defal nit formation bi nga xam ne dana tax ay jikkoom yi ko ci neexul dañ loolu naafile ko man jékki-jékki rek quatre heures du matin jóg jàpp cinq heures tàkkowaan jóg def ñaar ràkk tëddaat mbaa ñeenti tëddaat mbaa juróom benn tëddaat yonent bi nee na dee leen nuyoonte di yakkalante tey naafila bu ëllëgee bu ñu ubbi aljanna ku dugg ngeen dugg ku duggutul ngeen dugg loolu de ci njàngalam la bokkoon ca pénc ma ña ko déggaloon di ko def xëy gën ñëpp waaw xëy gën ñëpp ndax wa man yuti ilaaha wa rasul fa ulaika ma alladina an'ama allahu alayhim min annabiyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiin wa xasuna ulaika rafiqa waaw wa xasuna ulaika rafiqa mu ngoog alxuraan nee na ku topp yàlla topp yonent bi ña topp yàlla ak yonent ba ñooy ñi nga xam ne bu ëllëgee yàlla xéewal leen ñu ànd ak nabiyuuna ya ànd ak siddiixuuna ya ànd ak suhadaa ya ànd ak saalixuuna ya gis nga dund gur bi ni mu amee solo yaa ngi fii ci àdduna ci deux mille vingt yaa ngi fii ci àdduna si mille quatre cent quarante deux am na ñoo xam ne bi ñu fiy jógee waxuma la mille quatre mais gàddaay gi amagul cent am na ñoo xam ne bi mille vingt yii amagul six cent wala sax dóoragul ndax atum weer wi moom mag atum jant bi at mi ñu na tefee ndax yow ma xalaq samaawaati wal la juddu woon moom minha arbaatun xurum waaye ndekk mit nit mën naa nekk l'an deux mille vingt ëllëg mu ànd ak nabiyuuna ya allahu akbar nit ndekk mën naa nekk l'an deux mille vingt ëllëg mu ànd ak siddiquuna ya nit nekk mën naa nekk l'an deux mille vingt ànd ak shuhadaa ya ànd ak saalixuuna ya wa xasuna ulaayika rafiqa yàlla bu ne ñoo ñoo neex àndal ñoo neex a àndal yàlla nañ ca ànd ngeen ànd ca ndeysaan te fekk ci yaayi Maodo mu ànd ca meer soxna Jóob waaw <laughs> ndeysaan meer soxna Jóob yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk Madina ah liggéey ba rafet bii dafa doon liggéey mu am jeexantal bi aasaar yi retombé yi waa Madina nag loolu déranger leen ndax kaay leen añ moo gën a yomb nit ñi bàyyi leen nàng maanaam jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi tere léegi nag gaa ñu commencé di ko kobos léeg-léeg ñu dal ci kenn ca ñam jaboote léeg-léeg ñu sànni kàddu yàlla yonent bi xam ne ñii fi mu jëm ak ñoom mooy fokk loxo jóg waaw mu xam ne fokk loxo jóg ndax lépp luñ si ñente woon ñii ngi xëy di ko bàddi fiñ leen yem loo woon weesu nañ ko yemuñ ca di tooñ nit ki ci boppam waaye yemuñ ca di tooñ pas-pasam waaw yemuñ ca di tooñ pas-pasam ndax pas-pasu nit la nit warul di dugg li nga gëm baaxul waaw li nga gëm baaxul yow bokk ko ci mbooloo mi pas-pas yooyu la lislaam di aaye yonent bi tàmbali nag ne kon ñii ñoom duñ ma bett waaw sunu borom ne ko waajal de wa aydu lahum mastataatum min quwa wa min ribatil xayl bu yóbba ngeen waaj léegi turhibuuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa axarina min dunihim laa taalamunahum allahu yaalamuhum bu yóbba nga waaj gis nga ñii tooñ nañ la tooñ nañ ma fi ñu jëm mooy jël ngànnaay jublu si la comme bi ba nga teel leen waajal alayhi salaam ci la tàmbali waaj li ñu tudd ay saraya ay saraya saraya yi mooy ñi nga xam ne moo lay wax dem leen ca àll ba ngeen jàng tëb ngeen jàng jam ngeen jàng war ndax dangeen ko soxla ci kanam hmm? mu ne maa la ko wax ndax ñii ñu dëkkal li ñuy def déranger leen ëllëg ci suñ kow leen jëm waaye kenn du ñool makka waaw kenn du ñool makka mu tàmbali di waaj waaw waaw ne ko ko sunu borom waxee rekk rekk nag tabarkal la hmm? borom subhaanahu taala ne ko wala yazaaluuna yuxaatiluunakum bu xeex bi tàmbali dootu dakk bu xeex bi tàmbali dootu dakk dootul dëkk mukk xatta yaruddukum an diinikum in istataawu xanaa ñu jële leen ci diine ngeen bàyyi fi diine ji su fekkee mën nañ ko allahu akbar xare booba tàmbali woon ca badar noonu ko suñ wajur wa ndeysaan euh, sëñ Cheikh El Hadj Cheikh daan waxe ca badar yi ndeysaan El Hadj Medoune Thiam Alaaji Medoune Thiam moo doon organiser dix-septième guddi ci weeru koor ñu tudde ko Badar la Cheikh Touré mu ne ku jàpp ne Badar daa xewi déggoo alxuraan wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yaruddukum an diinikum in mu ne am loolu mooy Badar ju du dakk mukk dégg ngeen ko ca xasi dëgg am suñ subaaka waaw fa kullu man anfaqa fi mawlidihi lmusharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhamin fa innahu kaman xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin kon badar ja day continuer ba léegi dimension yeeg niveau yeeg ngànnaay yi nag moo dul bokk dimension yi niveau yi ngànnaay yi moo dul dokk dakk waaye ba tey badara nga fi wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yaruddukum an diinakum in istataacu buñ ko mënee waaye suñu borom ne moom wa man yartad minkum an diini fa yamut wa kaafir fa ulaayka xabitat amaaluhum fi dunia wal axira borom ne ku gaay yi xeex lañ la ragal tax nga ñëw dugg ci seen biir soppi ko nekk leen dinaa la duma fii duma la fële yàlla bum nu dal yàlla bum leen dal waaw yàlla bum nu dal yàlla bum leen dal inna lasina amanu walasina haajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika arjuna rahmatallah wallahu xafuru ñi nga xam ne gëm nañ yàlla ak ña nga xam ne gàddaay nañ ak ña nga xam ne jihaad nañ ñetti groupe yépp sañ nañoo yaakaar yërmande yàlla waaw ña gëm yàlla ña gàddaay ña kër-kër yi te mooy ñu jihaad ngoog tabarkalla ah ñoog moom ñoog moom ñoog moom ba niñ dajeeg moom ba dara mu duma leen ñu waajaat ba dajeeg moom uhud mu duma leen ma ne noonu la jàppe di leen duma ba arab yépp léegi ragal ko léegi nag yadxuluuna fii diinillaahi afwaajaa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajaa sunu borom ne ko kon waaj jot na li nga doon liggéey si mat na bàyyi koog ñoom te tëdd noppalu izaa jaa nasrullaahi wal fath wa raayta annaasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajaa léegi la war mooy fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba ndeysaan mu daal di waaj ajam ga walbatiku ñibbisi almadina tàggu saaba ya bàyyee leen alquran wa itratuhu ca lenn ci riwaaya waaye alquran wa sunnatuhu itratuhu nag léeg-léeg gaa yi ko lool ba lim ko list <laughs> gën naa yaatu loolu itratuhu gën naa yaatu loolu waaw ana jaddu kullu taqiyin mbokk yi bu nu déglee waxtaanu àjjuma déglu waxtaanu samedi déglu waxtaanu dimanche del siwaat nag ci suñ tomb bañ nekkoon te mooy jaamu yàlla ci alal yàlla nañ ci àggate weesu ko ñi ngi jéggulu soxna yi nag di jéggulu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew ak réewi kóor sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ngi ni taxaw yor di kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar tubaab firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mii di sa 3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu